That's how you do it. فاجمع اصحاب الميقات جمعا وقيل لا سيرة الان فارسل برامج من رسول الله

Baba. salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu ñuy setaan seen télévision la LCS de la chaîne sénégalaise ñu ngi leen di nuyu nak di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax nag di am mbégte sa su nek di leen présenter seen émission fagu ngeen and ci ak mamichu madame Fall tay nak ñu ngi fi ci Sikap Baw euh, en face terrain municipal bi ñëw sét ci fi nak ben kàngam bu mak man lool li def machallah di Thierno moulay so kon duñ def lu dul and ak sama cameraman daali dugg ci biir séti sëriñ bi cham cham cham. Àwa méjà talẹ̀ máa. Simbo microphone. salaamaaleykum man jotaay seer naa man man Alex. asalaamaaleykum man. so so so mu lee Mamadou Aliou Sall wela ko sam mayran kamaron yaayo ma waliyaɓe ceerno ceerno cosɗo ɓe kono jiidani gonga feeñi des kaɗa kadi ñalaɗa nder seernaɓe woni mulle mamadou aliou salli oto waɗi waɗi ko mbaɗani ya neggal yallaje cukalel doksel gasani jinne mbaɗa yoɓɓedde gasi waɗi salli yaɓaga yallaje cukalel doksel jooɗi gueɗo mana bidornogal yaatokinumami ene kay fof numami mati on yiyani walla on nanani ceerno mulle so gonga jam kirema Ceerno na kursunu yahdaare ko ndeer Ceerno jogiɗo téléphone kon mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi di leen ziar di am mbégte bii nga xamante ni bii fa tubaarakallaahu nit ku yàlla baaxal la yàlla dëkkal muy nit koo xam ni lépp lu def rek fa yàllay kese la at mii daaw lañ fi tuubaloon benn jigéen mu jële ko sookoon funjuñ ren dellusi keneen jóge fii ci ndakaaru te yaakaar naa ni boroom xam-xam yi bari nañu waaye moom fii la ko yàlla yebal si pour mu jël diine lislaam gëm sunna seydina muhammad sallallahu alayhi jernu nak fa tabarakallah di nit ku yalla baxal daray alquran yi nag ni si daw jakay yek juma yi tous les jours mi ngi dépenser 150 000 200 000 francs ci digënté ay café mew euh mburu pour wër jakay yi jox ko ñi nga xamanteni ñoo julit yalla yi fofu batay ñuy jël ñoo xam ni ay tuut tànk lañu di leen jàngaloo alxuraan di jël ay ñi leen di jàngal te ñi leen di jàngal moom mooy génne ci poosu boppam di leen di leen di leen jox amul kenn maanaam internat yooyu noo koy fayal boppam moo ko créé ci biir këram. benn élève du fay te muy ku yàlla baaxal nag ku laabir ku xol bu set. ku tabe ku iñaanul ku soxorul ku bëgg doomu aadama te dama wax ni yàlla ba muy wax néewul ba mu ne wala xadd këram naa néewul bàndi bâtiment bandi wala bandi kat-kat bandi aadama la wax foofu nag la ceenu repéré di def lu baax ci doomu adama yi buggul ku xiif buggul ku mar buggul ku rafle buggul ku amutiis kooku mooy ceernu mu mu nekk nag ah damay wax ni ku la gën ndey la gën yaayam ju baax ji fa tubaarakallaahu nga xam ni bu fa xaarul woon dara te jii ay daal duñ ko sumil kon nag soxna Mariama Kamara yal na yàlla guddal sa fan kañ tuubaleen daaw yow mii lañ ko duppee kon Thierno am na fu mu teg ndeyam kon Thierno ñu ngi lay ziar ci weeru koru tedd wi di la ñaanal yàlla sa fan gudd dafa wax ni nag xatma bii ñuy jàng nañ ko ci ñaanal ñaanal incha allah ñaanal ci ndeyam ji ñaanal ci baayam ñaanal ci ay rakkam ñaanal ci kii nga xam ni day dugg ci diine lislaam bëgg mu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñaanal ko mu sax ci ñaanal quartier bi ñaanal ulama yi nga doon ñu doon jàng alxuraan ji ak taalibe yi ñaanal waa koñ bi ñaanal waa quartier bu ñaanal Sénégal yàlla guddal fanam ci barke yonent bi kon daal euh, loolu la waxoon kon bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله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 اللهم أنفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكر الحكيم بمن الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر أي وكفر تلاوته أن سيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو ونسيان أو تعريف كلمة أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تأجيل عند تلاوتي أو كسل أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان اكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والضغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسق الميزاننا من بالحسنات وثبت أقدامنا على السراء واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وكعائدنا وسائقنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعل اللهم اجعله آنسنا في الوحسة ومصاحبنا في الوحدة ومصاح ومصاب ومصابه ومصابا ومصابحنا في الظلمات ودليلنا في الحيرات ومنقذ في الفتنة وأس وأمس وأسمنا به من الزيغ والأهوال وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بسعادة آجالنا وحقق زيادنا آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآسالنا وجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعاب مسورنا ومعالنا واسبج سجالنا عفوك على على ذنوبنا على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وسقط بك زخرنا واعتقاد واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وبلاد سائر المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا ولأمهاتنا ومسائخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم إني أسألك علما نافع رزقا واسعا شفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الأول هذا النهار صلاحا وأوصله فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا وخير الآخر من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوصله فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا وخير الآخر من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوصله له فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا وخير الآخرة من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قديت ولا مريدا إلا شفيت ولا حاجة من هواي الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وزاب الآخرة لا إله إلا الله الأليم الهليم لا إله إلا الله رب السماوات السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم يا حي يا قيوم رحمتك استغيث اللهم ارجو لا تكلنا إلى نفسي طرفة عين واسل لساني كله لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب الأرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يسع لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن أنت آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وأسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تسعى إلى صراط مستقيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتينا من لدن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 واسع سفاء من كل داء وسقم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ودي السماوات والأرض يا ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديو السماوات والأرض يا ذا الجلال والكرام يا حي قيوم لا إله إلا الله الأليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض الكريم يا حي يا قيوم رحمتك استغيث اللهم أرجو لا تكلنا إلى نفسي طرفة عين واسله لساني كله لا إله إلا أنت يا رحمة ربي اللهم إني أسألك المنان في نافذا واسع سبع من كل داء وسقم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله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 يصفون وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah gannaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yonante bi di leen jéggalu bu baax a baax ci toogaay bu yàgg bi ci weeru koor la ñu nekk alhamdulilah maa ngi nuyu kilifa yi toog ñu jàkkaarloo ma ak ñëpp ak soxna yi di nuyu suma kilifa Mariama Kamara waaw di leen jéggalu bu baax a baax ci bis bi tey di nuyu imaam di nuyu suma taalibe yi ñoom jeego ak ñëpp ku lim juum di nuyu tamit télé bi ma seet si waa LCS di leen nuyu bu baax a baax daanaka bii du benn yoon waaw bi mooy deuxième émission édition yàgg nañ tuubal ay nit daanaka ñaari yoon lañ ko wane télé mais li ëpp duñ ko wane télé di sant yàlla bu baax a baax gannaaw toogaay bi dafa yàgg ñu fas yéene rek tuubal soxna si mhm. dugal ko ci diine lislaam defe naa ne lii ndamu lislaam la lii doolee lislaam la lii la mag ñu baax ñu doon xeex mhm. yonente bi salallaahu taala wa sallam muhammad lii moo ko yóbbuwoon xare Badar. defe naa mag ñu baax ñi. ku mel ni suma sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. di xalifa. Cheikhul Islam Cheikhul Islam Mawlana Cheikh Baye. lii la doon xeex. ñoom El Hadj Malick Sy. lii lañ doon xeex. Xaadimu Rasuul ñoom Xaadimu Rasuul lii lañ doon xeex. ñoom Limaamu Laay. Njaasaan. waaw kilifa diine yëpp. macha allah lii lañ doon xeex bés bi tey. kon dañuy sant yàlla bu baax a baax bu ñu yàlla jagalee cër bi. Ah. jox ma ko man Thierno Moule Sow. macha allah di sant suma yaay Mariama Kamara bu baax a baax. waaw ah, di sant suma papa Momadou Aliou Sow euh, sant yàlla bu baax. Mm-hmm. Euh, ndax bàyyi na kër yu bëri. Mm-hmm. romb na kër yu bëri. Mm-hmm. romb na kilifa yu bëri romb na borom xam-xam yu bëri. kon bu amee yaakaar ba ñëw ci man Thierno pour mu tuubal ko dugal ko ci diine l'islam ah. euh, damay kontaan ci ndam la ndam la ndam la euh, ma kontaan ci wax ci suma dëkkandoo yi nga xamante ñoom laa dëkkal muy oustaz bi yor internet bi fii ak suma mbokk yi fii mm-hmm. suma dëkkandoo yëpp ak chef de quartier bi ma wax leen ko ñoom ñëpp ñu kontaan ci ñu fas yéene tey def ñu wàccee fi kaamil juróom-ñaari kaamil mm-hmm. ñaanal ko yàlla hmm. ñaanal ma yàlla ñaanal suma waajur ñaanal waa quartier bi macha allah waa Sicap Mbao ñaanal Sénégal ñaanal aduna yàlla ñu yàlla defal ko jàmm waaw c'est important di di sàkku ci yéen ñaan bu baax hmm. ngeen ñaanal ko bu baax mu sat ci diine l'islam ndax lii def naa ne jullit bu ne hmm. lii war na mën a bég ci lii ndax euh, boo ne su ma fekkoon jamono yonente bi damay dem xee xare damay dem xare ji kon lii jamono yonente bi la ndax yonente bi lii la doon jihaad mag ñu baax ñëpp ñu ngi jot doon jihaat di kontaan ci yéen bu baax di leen ñaar mhm. képp ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo te yàlla dina faj sa aajo ndax euh, tuubal nit mu dugg ci diine lislaam loolu ci yaaba bu rëy la nga fekkee ko nga dégg ko nga teewee ko surtout maa nga ñëw bokk ci wàccee kaamil yi loolu tiyaaba bu mag la waaw di leen sant bu baax di leen ñaanal képp ku fi ñëw yal yàlla faj sa aajo yaa xam aajo boo mun a am yal yàlla faj te ñoo ngi sant yàlla bu baax di nuyu suma xarit Thiam Dogo ak waa LCS gannaaw waxtu bi motewu ko ñu fexe ñu tuubal ko dugal ko ci diine l'islam en ah, imam mhm. waaw bismillah euh, waaw soxna si nu mu tudd wax na mu tudd. wax na mu tudd. mu ne. wax na tur جيراني اه الله إيه. ko xadi xadi ko waaw kon Thierno loolu daa jaral nga biral ko tuuti waaw ci rajo bi ndax ñëpp dégg ndax lii ngay def moom la lislaam bëgg te lii day tax lislaam bàkku am na loo xam ne dañ koy yeelu waaye am na loo xam ne mën nañ koo biral te lii dañu war a biral lii sax ndax tey jii boo doon wër fii lii bëriwu alhamdulilahi rabbil alamin hmm. gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonente bi loolu la ko wax ñu ne ko bés ni ki tey duggu na ci diine lislaam wax nañ ko juróomi ponk yi euh, dugg na ci diine bi hmm. nga euh, tuddee nañ ko xadijatu dëgg la dégg nga bu baax ponk yi ah. nee nañ day sangu janaba dégg nga day julli julli juróom wax nañ ko day joxe asaka wax nañ ko day dem màkk bu ko munee wax nañ ko weeru koor mu woor ko. dëgg la waaw wax nañ ko lislaam sartu lislaam yëpp wax nañ ko ko ab seetal na ko ab bas ni ki tey dugal nañ ko ci diine lislaam mbokk yi ñaanal ko. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu ñaanal ko ñu fi nekk ñëpp mu sax ci. bañ sax ci dat te bañ ci jóge ba keroog muy sangu moom itam mu ñaanal ñu mu ñaanal ñu moom it lu waaye am nag mun na ko jox pour mu kontaan lu waaye am moo xam ñaar fukk nga am moo xam juróom lu waaye am mun na ko def ñu gën ko kontaan ndax tey diine lislaam dafa am gan ah, ah. dafa am gan ñun dañ ci lii suñu fierté la suñu mbégte la dëgg la waaw suñu fierté la suñu mbégte la waaw aussi bëgg na lislaam la rek. ganu lislaam la tey jii. ganu lislaam la il faut ñu bëgg. waaw waaye am amul benn bàkkaar. lu tey amu jigéen ñi mën na ci kàttanu yàlla loolu si Ndiaye Mokho alayhi salaatu wa salaam. jigéen ñi mën nañoo joxe loxo waaye góor ñi bu ñu joxe loxo. waaw góor ñi moom bu ñu joxe loxo jigéen ñi. nga ñëw rek jox loxo. lu waay man lu waay am ñu duggee la ko lislaam. macha allah macha allah waaw waaw. ñu ngi jaar fanaan. ñu ngi jaar fanaan. barakallahu ni nga liggéey dafa fela togo fiɗi togo wobi togo on wonnaɗi salli hakkude maɓɓe mbaɗa sadio koli sadio kumay sadio heccanki ɗo wonno hakkude ma abou djoubade e amadou madani boyli kumbel min ɗo golle joɗɗo payidi nder galle kaddu gaa moom alhamdulilah rabbil alamin kontaan naa bu baax suma yaram daw na tey diine lislaam am na ndam waaw kontaan naa ndax ba ma waxee wax dëgg yàlla kenn ku ne lu mu yoroon indi na ko kontaan bu baax moo ngi moo xolam tooy na kon ñu sant yàlla bu baax nañu ñaanal yàlla defal ñu jàmm waaw lii képp kuy jullit war nga lii tey sa xol war na mën a sedd te def naa ne ñu fi nekk ñëpp seen xol sedd na man suma xol sedd na yàlla moom si boppam yàlla xolam ndax ñu baax ñi seen xol seen kon alhamdulilah rabbil alamin diine lislaam ci kaw ci kanam waaw diine lislaam ci kaw ci di sant suma yaay bu baax Mariama Kamara diine lislaam ci kaw ci kanam képp ki nga xamante ne tamit bëgg na lu mel nii bëgg na jóge ci beneen diine ñëw ci diine lislaam man Thierno pare naa pour tuubal la man missionnaire la man yàlla moo ma yónni dégg nga waaw li ñu wax man kaana lillaahi kaana allaahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la su ma lépp yàlla la waaw su ma lépp yàlla la di sant kilifa yëpp ñi fi teew ñëpp ñi jàng kaamil bi yàlla yàlla defal jaamu bu baax a baax lii lu baax la macha diine l'islam kontaan nañ man kontaan naa ñëpp kontaan nañ ñi fi nekk waaw l'islam bàkku na képp ki nga xamante ne aajo boo fi yàlla yàlla a baax quartier bi yàlla ko yàlla sàmm si kàddu baax yàlla yàlla sàmm quartier bi yàlla nañu yàlla jàppale jàppale mbooloom julli jërë ngeen jëf waaw kon mbokk yi gis ngeen li fi xew euh, ba tax na fa tabaarakallaahu euh, dañuy ñaan yàlla ceernu faram gudd kon daal dañuy wax ni l'islam bàkku na tey bu fekkee mbër la ah te dëgg-dëgg wax dëgg yàlla lislaam tëggaat na yeneen dundin yu bees fii ci si Kambaaw ci kër Thierno ndeysaan ñu nekk fii nag ci en face terrain municipal bi di ñaan yàlla bu dul fanam ci barke yonent bi kon duñ def lu dul rek émission boobu ñuy wax Fago Fago la ñu jox ko muy suñu mbokkum journaliste muy xale bu yàlla baaxal moom mu dugg ak Thierno nag. ci ay bagages yu leen ko waxee woon nag ci ndoxteel bi ñu ngi fii nag tey ci Sicap Mbao en face terrain municipal bi ñëw seet si fi ki nga xamante ni mooy Thierno lay Sow di kàngam bu mag mën loolu li muy def macha allah di yëngu ci wàllum pajum olof comme ni ñu ko xamee di tradipraticien waaye nag di kilifa diine comme nag ni ko ñëpp xamee moom mooy bàkkam mooy jinne jinne yi kon nag sëñ bi ginnaaw bi nga ñu dalalee fii tey sa kër di Sicap Mbao ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateur u LCS yi lay seetaan alhamdulilah rabbil gannaaw bu ma sante yàlla di julli ci yonante bi di sant suma ñaari waajur di sant aduna bi yëpp di sant suma sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di ko sant bu wër di sant kilifa diine yi di leen nuyu bu baax a baax yow soxna si maa ngi lay dalal fii ci kër gi di la dalal fii bu baax di nuyu ñii fi toog ñëpp kilifa yëpp di nuyu suma dëkkandoo yëpp di nuyu chef de quartier bi di nuyu oustaz bi ma dendal fii di nuyu commissaire Sarr suma xarit di nuyu ñëpp di leen sant bu baax naan leen bismillah dalal jàmm. jërëjëf kon sëñ bi ñu bëggoon nag nga wax téléspectateur bu LCS yi lay seetaan kan mooy Thierno Mouleye Sow. alhamdulilah rabbil alamin Thierno Moule Sow mooy nit ki nga xamante ne nit ku simple la. Mhm. nit la ki nga xamante ne mooy adunam yëpp ci xam-xam la ko def. Mhm. adunam yëpp ci xam-xam daan dem ci àll ba ci ay montagnes yi nga xamante ne ay boowe. Mhm. fu laay dem ci àll ba montagne bi nga xamante ne nit ñi ñemewuñu ko waa dëkk bi ñemewuñu yéeg foofu. man na ma jël suma risque yéeg ci montagne yooyu. alhamdulilah rabbil alamin yàlla jàppale ma ci montagne yi ma daan dem yëpp. Euh, bëri na li ma fa jëlee. ak li nga xamante ne dama ko doon suma maam Saliso. ndax man suma maam dafa réeroon juróom-ñaari at ci àll ba ba mu réeree nit yaakaar ne faatu na ndekete faatuwul ay jinne ñoo ko for ah. xam nga léeg-léeg jinne yi dañuy jël nit ñi nekk ak ñoom mu doon seen njiit léegi nag alhamdulilahi mu feeñ ba mu ñibbisee ñi ñi dalal ko takkal ko soxna ba ñu ko takkalee soxna si la jur Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow moo ma jur man Thierno Moulay Sow Mamadou Aliou Sow mu takk soxna su baax ju mel ni Mariama Camara mooy suma yaay mu nekk suma wet ni euh, xam-xam bi foofu la jóge waaw man Thierno médecin traditionnel laay def defe naa ne adduna bi yëpp xam nañ kuy Thierno Moulay Sow à travers émission yu may def ak témoignage yu may def tey sax am na ñu bëri ñi nga xamante ne faj naa leen ñoo ngi toog ci jotaay bi dinañ leen jël ñu def seen seede ci kanam di ñu dugg ci loolu ba tey sëñ bi dañuy jàll ñu nit ci seede yooyu ndax dañoo ñëw tey fii ci Sicap Mbao fekk la ngay tuubal benn xale bu jigéen euh, te nag du benn yoon du ñaari yoon say mbokkoo ko wax ak say dëkkandoo te defe naa ne bu ñooñu seedee ñëpp seede nañu say dëkkandoo ko wax du benn yoon du ñaari yoon nga leen di tuubal la moo waral xale jigéen yooyu tey bàyyi ñëpp tëb ñëpp ñëw ba ci cenn mu mun lay saw ban secret nga am ba xale yi ñëw ci yow pour nga leen di tuubal alhamdulilah rabbil alamin man na suma lépp yàlla la man suma aduna yëpp yàlla la man suma lépp yàlla la lépp lu mu am dama koy bokk ak doomu aadama yi euh, di liggéeyal yàlla yonante bi li ñu man kaana lilaay kaana laahu lahu ku nekk ak yàlla yàlla nekkal la man dama nekk ak yàlla ba dara doonul dara lépp lu mu am bokk ak jaam di liggéeyal yàlla di liggéey yàlla ci jumaa yi di liggéey yàlla ci jàkka yi jàkka bu pareegul bu ma rombee gis pareegul ma xool guddi ndànk xool jënd li may jënd yëpp yóbbu ñu defar ko chaque weeru koor dañuy joxe ndogu daaw heure bi ñoo ngi doon joxe ndogu ren boo gisee joxe ma ndogu dafa am jàkk bi may tabax ak tubloo bi loolu moo tax alhamdulilah rabbil alamin euh, xëy na yàlla dafa am cër bi ma jagalee ndax man sama lépp yàlla la nit ñi am yaakaar ci man liggéey bi may def mooy médecin traditionnel bi di ñaanal doomu aadama yi ñuy gis lu baax li may def xam naa loolu la ñu am yaakaar ci man ñu ñëw pour ma leen du bulet kii yàgg naa di tuubal nit xëy na bi mooy deuxième édition bi may def tele mm-hmm. mais tout le temps dañuy tuubal ay nit mm-hmm. waaw mm-hmm. kon señ bi batay ñu jall da nga wax legi mbirum ay daara ak yoy kon yow la nga yëngu ci mbirum social. wa dañuy yëngu ci social. wa parce que doguma la euh, say dëkkandoo ñoko wax nenañ ci seeni témoignage ubi nga fi ay daara di jangalo ay xalé te duñu fay dara. Mm. wéru ko day jot nga jël say ndogu jël sa alal diko def ci doomu aadama yi. Mm. te kenn fayu la ci kudul yalla ci mm. mbirum social bobu nga yëngu lan mo la ci pousser bang koy def. waaw dama ko donu nak suma papa momodou ali Sow suma yaangi ni mo na don suma chede suma papa dama ko doonul xam nga dama ko fekk suma kër papa suma papa lii la doon def nit dafa doon jur doom du am lu mu ngénte suma papa ngénteel ko nit dafa doon am doom bu ko dugal néegu góor suma papa dugal ko néegu góor suma papa dafa doon def si jàkkay di jënd ay ventilateur loolu yëpp suma papa laa ko gisee suñu kër dañ naan togg mbana nit yi dañ naan ñëw di lekk foofu di naan di def lu ne loolu foofu laa ko jëlee mooy Mamadou du Sow man Thierno loolu foofu laa ko doon suma yaay tamit doon baax xàmmewul doomam xàmmewul doomu keneen xam nga boo nekkee ay ay nit yi mag ay kilifa ay borom xam-xam ay nit yu waliw nitu yàlla boo màggee ci kër yooyu foog nga mel ni ñoom waaw waaw mbaax mi falaa ko jëlee kon ko jëlee kon maanaam ndono la ci say waajur ba tey du jàll ci mbirum social gis nañ di tamit dangay faral di dem ci hôpital yi mhm. di dimbali néew ji doole yi nga xamante ni dañu feebar te amuñu lu ñu jëndee ay ordonnance mbaax googu ngay def dëgg la naam donn nga ko mais am na leneen lu la ci poussé ba nga koy def waaw lépp yàlla la man suma ma yàlla la yàlla rek la mhm. su ma man dama jël suma xol jox ko yàlla mhm. euh, ndax jamono yi may dem ci montagnes yi nga xamante ne ay montagnes yi xamante ne ay cinq kilomètres la boo yéeg da nga yëg di noppaleku yëg di noppaleku jamono yooyu kenn nekk fa ku dul yàlla su ma lépp yàlla la kon bu ma yàlla jaglelee xam-xam bi ma donn su ma kër papa jox ma xéewal dama koy bokk doomu aadama yi du ngistal du dara man su ma bopp laay liggéeyal liggéeyalu ma kenn ku dul su bopp ndax nit ki lépp loo fi liggéey boo eh, kerew àllaaxira loolu ngay fekki suma ma bopp laay liggéeyal waaw ba tey am na léegi benn soxna bu fi jaar ba wax ni ko yow da ngay dimbali doomu aadama yi raison pour laquelle dañ fiy ñëw indi seen jàngoro nga faj leen daam amaana amuñu sax fay mais doo leen ko laaj tax ndax si dool yi dañuy faju nga yëkkati sa xaalis jox leen ko ni leen paasal ba tey ñu gis ni léegi nit ñi tey kuy jóg di faj pour daraa tax léegi yow dara jooju nga am nga jëlaat ko jox ko doomu aadama yi lu la ci dugal waaw sant yàlla rek lépp yàlla la mhm. faj dafa metti surtout ma man cernu su ma faj mhm. Sénégal bëri nañ ay fajkat waaye xam nañ kan mooy cernu mu la sow mhm. xam nañ fajkat yi xam nañ kan mooy cernu waaw kon sant yàlla parce que lépp looy def da nga ciy dëggu nga mën ko li may def ni du dara li ma gëm la mbaax bi ma yàlla moo ko def ci man ak may liggéeyal yàlla di roy suma waajur di roy suma sëriñ bu Cheikh Ibrahima ñas sant yàlla bu baax a baax du lépp la ñuy wax am na li nga xamante ne maa ngi koy def du ma ko wax kon dañuy sant yàlla bu baax a baax ñu dolli sant yàlla kon sëñ bi leen rek lañ la bëgg a ñaan tuuti comme tey da nga woote say dëkkandoo wuy si la te nit ki amul lu dul dëkkandoo dañ la bëggoon ñaan rek est-ce mën nañ def tuuti témoignage ci say dëkkandoo laaj leen kan mooy mu lay Sow lu mun a nekk la lu mun a nekk la lu mun a nekk la mhm. waaw bismillah lu mun a nekk la kon sëñ bi ginnaaw bi ngeen ñu bi ngeen ñu dalalee tey fii ci Sicap Mbao ñu bëggoon la laaj comme yow Thierno dëkkandoo mu lay saw nga lan nga xam ci Thierno Mouleye Sow alhamdulilahi rabbil Ceerno macha allah la tudd ku ko gisut it dégg nga turam ku ko gisut it ma ne dégg nga turam man mii dégg turam moo tax ma ñëw te itam man dama yore woon feebar dem naa ci hôpital yu bari dem naa ci garabu wolof yi dem naa fu ne. bi ma sonnee ba ñëw ci moom daal wax ak moom eh, suma doom itam ñu fa Ahmad Tabsir mooma booleeg moom moo gis eh, Thierno ci télé gis itam ñi koy questionné ji jigéen ñi ak góor ñi naan Thierno jërëjëf man de sa garab baax na li ma joxoon njëriñ la ma ma ne ah kon de man itam naan seeti Thierno waaye alhamdulilah bi ma bi ma waxtaanee moom eh, daf ma ne bu soobee yàlla daal dinaa le dimbale te yàlla tax ba tax na it mu jox ma ay garab bi ma demee di jàpp naa ci garab yi suivre am na it yoo xam ne daanaka dama ko diwoo waaye daal alhamdulilah daal garab yi eh, macha allah ndax daaw ma nelaw guddi sax waaye bi ma jëlee garab yi di ci suuru commencé naa di nelaw guddi kon nag Thierno dafa am sëriñ yu am sens ah, mm-hmm. lu ñu tifli sax muy jàmm mm-hmm. lu ñu bindee muy jàmm lu ñu la jox muy jàmm mm-hmm. no nag yàlla may na ko loolu ba tax na Eh, dañu koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér mhm. di ñaan itam soxna Mariam Camara mii nga xam ne mooy yaayam gërëm na ko ci suñu kanam mhm. kon nag ka Ceerno eh, lii kon ni lii mu nekke mhm. foraatuwu ko wallahi ndono ndono la kon nag Ceerno jàmbaar la kon nag dañuy ñaan Ceerno yàlla na ko yàlla bàyyi docteur la de docteur la docteur la nag bu dee faj dañ koy ñaanal gudd fan mu yàgg faj di ñaanal li soxna Mariam Camara mii nga xam ne mooy yaayam toog naa ñu toog mu ñaanal mu ne ma Thierno de ñaanal naa ko di mu taxawee ba léegi daal gisuma ma maruma raflewuma Thierno lu ma bëgg ci suba ngoon Thierno ngi ci kawam bii tuubaal tey bii mooy si ñaareel wal bokkat ak ki joge woon te fale fu njuñ kii te mu tudde khadijatu khadijatu bintu xuwaylid assalamu alaykum wa rahmatullahi ceerno euh mon munu ko dañ koy ñaanal dal li lañu amal ceerno waaye kenn mënu ko fay de ngeen li ñu wax fi mbaaw sika mbaaw mbaawa ngi nii e elimaan yaa ngi nii nee nañu tabaski ak korita day ñëw jappale len te item école bi wax deug yalla fenn rek la ko gisoon benn baas waaye moom momitam ko bax la mom ben bass yel nako yalla yàlla yeen yéen ak yaayam ak ñi fi toog ñëpp mm. yal na yàlla guddal seen fan wéral seen cër yokk seen sutura barkeel seen liggéey faj seen aaju saafara seen jàngo ànd ak tal ak fekke ak jàppandal yal na ko yàlla dolli waay yal na ko yàlla saxal di jaay rasulullah amiin amiin daal lii rek lañ ko mën a def ñaanal ko waaye mënuñu koo fay moom macha allah shukran kon sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jox la kàddu gi kii di yaayu na Thierno lay Sow kon nuñ ko waxee ba maa nag ñu bàyyi la nga témoigner ci sa doom ndax nag gërëm na la sànq lépp yaa ko fi xaar boo ko fi xaar woon du la fi fekk kon ñu bàyyi la nga sànni ci say kàddu. fu mm. nekk maa ngi tudd maa ngi lay nuyu sa tur sa sant. Mm. ginnaaw bu ma jullee ginnaaw bu ma sante yàlla. Mm. junni si mu yarante bi. di sant sama ñaari waajur. di leen ñaanal fu ñu nekk yàlla na leen yàlla yërëm te yeexee ñu. yàlla tàbbal leen si aljana yi gën a kawe waaw Thierno Moule nag sama doom la sama doom la de dëgg yàlla doom bu ma déggal la ma déggal la ñaanal naa ko ñaanal naa ko bu baax papaam ñaanal na ko li xam-xam bi muy nekkal nii xam-xam bi muy def nii si papaam la ko jële si papaam la jël ndax dafa fekk papaam mu nekk boroom xam-xam mu juddoo si mu màgg si ba moom nu mu jógee ni mu jël xam-xam bi papaam jox ko xam-xam bi taxul moom tam mu dem gestu ji ay xam-xamam mm-hmm. mu dem gestu ji fu ne dem na fa chaque at day dem bàyyi ma fi dem Guinée amul fu mu demul fu ne dem na fa su ma ko nee toogal mu ne ma yaay damay dem boo gisee may dem dama bëgg a jàppale doomu aadama yi day jël fi ay million am dem su demee bu ñëwee du dellu si dara moo max rakkaam bi jeego amul fu mu demul loolu yëpp pour di dem rek di ji xam-xam yàlla jox jox na ko xam papaam jox na ko xam-xam waan taxul nee day dem du gestu ji pour dool di xam-xam bi pour delloo rek dimbali nit ñi rek pour gën leen mën a jàppale waaw man nag sama wax dafa bëriwul wante sama xol dafa fees man daal maa ngi ñaanal muule yàlla na ko yàlla may fan bu defar gu yaram lépp lu mu mën ren lii at bii ñëw yàlla lu man lu raw lool moom ak rakkaam bi jeegoo sama xol dafa sedd si ñoom wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd si ñoom namu ma dara maa ngi sama xol dafa sedd si ñoom waaw yal na leen yàlla may fan bu gudd ax wër gu yaram yàlla may leen suuf si seen njort may ko mboolum jullit yéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant gërëm naa leen yéen ñëpp waaw seen taxawaay rafet na gis naa ni ngeen taxawee sama doom bi yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yàlla may leen lu sedd seen xol lépp lu ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defaral barke salaatul faate barke lay lay la laaw barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rafetlu nañ bu Thierno Moulay Sow yi témoigné kon a ñu fatali téléspectateurs téléspectateurs LCC ñi sétane numéro Thierno Moulay Sow mu ngi dëkk fi ci Sikap Mbaw en face terrain municipal bi képp ku ko soxla da ngay ci 77 781 62 40 wala ngeen woko ci 76 126 73 42 mu Moulay yan jàngat nga am ci témoignage yi la fi nit ñi témoignel ak ban yëg-yëg nga am bi sa yaay waxee alhamdulilah rabbil alamin su ma yaram moo daw mhm. su ma xol tooy mhm. euh, su ma xel dem suma papa Mamadou Aliou Sow mhm. ndax xam-xam bi fa laa ko jëlee su ma xel dem ci Salli Sow suma maam sant yàlla bu baax lu mu dëgg la ndax euh, alhamdulilah rabbil alamin chaque at damay jël ay million dem ci àll ba àll bu ne dem naa fa risque bu ne jël naa ko mhm. suma bakkan mënoon na des foofu mais lépp dama naan ngir doomu aadama yi ndax yaakaar dafa foor mhm. bu leen nit yaakaaree ba ñëw ba ci yow mhm. pour nga dimbali ko war nga mën a góorgóorlu nga jàppale ko sant yàlla bu baax liñ daan dem ci àll ba du niilul ndax doomu aadama yi ñoo ngi may seedal émission bi ma def muy télé muy rajo nit ñi dañu may seedeel mhm. te ñiy faj bari nañ lool mhm. mais li ci ëpp ñoom rek ñooy wax mais man Thierno xam nañ mhm. ñëpp ñu may faj dañu may seedeel te patient yaa ngi fi toog ñi ma faj dinañu seede parce que émission yi bari nañ trop mais xam nañ kan mooy Thierno sant yàlla bu baax kontaan ci bis bi tey ndax tuubal soxna si nga xamante ne tey ndeysaan maa ngi ko tuddee léegi soxna Khadijatu Diouf kon lii damay gën a kontaan rek c'est important di sante ñi fi teew ñep di gërëm ñep mhm. di leen nuyu bu baaxa baax mhm. d'accord kon comme wax nga ci ki nga tuubal léegi ñu jall ci soxna khadijatu soxna khadijatu ñu lay laaj lan mo la poussé pour nga tuub ak naka ban yeg yeg nga am ci téno mu lay saw ba bàyyi ñep ñew ba ci mom bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ginaaw ma sante yalla ma ngi sante téno mu lay saw mhm. ak bép julit bu téwé bës bi man nag maa ngi jóge ba waagu ñaay romb naa ñëpp ñëw ba na mu Moulé saw ndax damaa gis si moom daa gëm yàlla fonk yàlla am fu mu teg yàlla respecté tamit doomu aadama bu baax mën nag xam naa damaa réeroon ma ñëw fii ci Sicap Mbao pour jublu si diine l'islam te rëccuwuma ko tamit maa ngi sant yàlla bu baax junni si yonent bi salallaahu alayhi di dugg di door nag dugg si diiney lislaam mhm. te rëccuwuma ko mhm. te yàlla na ma si yàlla saxal ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna Xadijatu xam naa ne xol bee tooy moo tax mënuloo wax kon sëñ bi nag ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi LCS yi lay doon setaan tàggoog nag say am di jàmm ak say dëkkandoo. waaw damay sant yàlla bu baax damay sant yàlla bu baax julli ci yonente bi mhm. ci weeru koor bu tedd bi mhm. ñu tuubal fi jullit ci sikaab mbaaw mhm. lii ngëneel la lii mbégte la lii lu rëy la ci jullit yi mm-hmm. lu rëy la ci diine lislaam mm-hmm. euh, damay sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di sant suma yaay Mariama Kamara mm-hmm. di sant suma papa di sant adduna bi di sant Sénégal di ñaanal senegal yal na yàlla def jàmm ndax wàccee nañ fi tey juróom-ñaari kaamil euh, ñaanal ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp tuubal bi jubluñ ci dara lu dul taxawal diine lislaam xeexal diine lislaam pour diine lislaam jëm ci kanam lu ñoom yonente bi doon jihaad ak ak sëriñ su mag si euh, ñun suñu tànk fa lañ ko teg fu ñu tegoon seen tànk man na mu Moule foofu laa teg suma tànk di jihaat waaw képp ki nga xamante ne sa xel dem na nga bëgg a tuub dugg ci diine l'islam boo ñëwee ci kattanu yàlla lu ñu mën dinañ ko ci def ci kattanu yàlla pour tuubal la ñi fi teew ñëpp ak ñi doon jàng kaamili ñëpp waa koñ bi ñëpp waa Sika Mbaaw ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp mhm. waaw jaajëfal seetaan ñu ngi leen di fàttali ni ñu ngi woon fii tey ci Sicap Mbao ñëw seet si fi Thierno Mouleye Sow ñu ngi fàttaliku ba léegi numéro téléphone am yi ku ko soxla rek mën nga ko woo ci mu ngi fii ci en face terrain municipal bi képp ku ko soxla rek mën nga ko woo ci numéro yooyu di nga ko jot incha allah ñun nag ñu ngi jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon ñoom Kébé Assane jaajëfal nañ leen bu baax ba nag maa ngi jaajëfal waa Mamichou création Diallo ñoo ma génnee ci yu baax yi di fàttali seen numéro téléphone booy mooy 78 146 66 66 képp ku bëgg ci yu baax yi rek mën nga leen woo ci numéro boobu di nga leen jot incha allah kon nag dinañ leen fàttali ni yéen a ngi woo ci seen émission fagu ngeen àndoon ci ak mamichu madame Fall kon nag ñu ngi leen di jox dig daje fii ak fan incha allah ak beneen kàngam à très très bientôt.